bàyyi ah baax na c'est bon ah aja c'est bon silence demandé silence jërëjëf silence demandé waay silence àdduna yi ñuy seetaan yi ci biir réew mi ak yi ci bitim réew tey ñu ngi am mbégte ak contentement ñëw fii ci golf fi nga xam ne mooy kër Balla gay macha allah li fi tax daje nag dafay def safar comme ni ko murit yëpp di defee comme ni ko jullit yëpp di defee waaye comme ni ko taalibe yëpp di defee dañ koy bàyyi mun di yokk mbokk internet yu ñu seetaan nuyu waa Sénégal nuyu waa biir réew mi ak ñi ci bitim réew waaye nuyu la presse national ak internet yi champion ñu ngi lay ziar bu baax. maa lay nuyu di la di nuyu àdduna di nuyu sénégalais. baax na bu jógee lu baax la wàcc baax santaat yàlla bu baax di ñaanal seen Mountakha Mbacké mu yàgg lool te njabootu maam Cheikh Rafal maam moom laay bu Kunta Gassane bàyyiwuñu kenn ak mbokk internet yi ñu fi taw dajale fi di nuyu suma mag Lirou Diane baax a baax di nuyu suma frère aussi tamit Ousmane Diop lii nag bon yàgg nañ ko def. ak bu ñaan yàlla rek yàlla buñ ci gis boobu yàlla nañ koy gën a ak képp ki nga xamante ne am na yéene pour def ko mu ngi noonu kon Balla mu mel ni bii mooy ñaata yoon ñaata at nga koy def. mënatu ko lim mënatoo ko lim. <laughs> waaw yàgg naa ko def. lan mooy initiative bi parce que Balla murit la. Hmm. parce que Balla julli la parce que bay Balla Baay Faal la gis na ni murit yëpp ñu ngi koy def Sëñ Tuubaa ko santaane moo tax Balla di ko def. xam nga même bu même ñu dul murid sax ñu ngi ko def parce que tey réew mi toll na foo xamante ne muy tijaan muy muy muy xaadir laay na seen ñëpp benn lañ nga gis ko am dafa am yéene rek ci am yéene ci ka waa kër sëñ moom Alaaji Maalik Imaamu Laay kon ni ko ñëpp defee rek bu ma gàmm jotee màggal jotee dara jotee rek kenn ku ne da am pour def dem en tant que di ziare suma sëriñ sëriñ Bassirou Bara yàlla na yàlla yokki leeram di taam ci barkeem amiin yaa rabbi waaw loolu moo waral ñu ko def mu nekk taalib sëriñ Touba aussi tamit mais bala ñu daan gis ma ko daan def ci beneen facette takk ndigg li yor këll bi topp tali yi di majal parce que ku xam ne bu ne murit ñu ni ndigal waaye bu ne Baye Fall ñu ni majal tey bala def ko ci beneen facette lu waral loolu waaw xam nga boo jógee si combat pour nga créer amutage day bëri te àdduna li ci bëri da nga koy xaw a éviter mais nga def lu la war rek plus important mooy lii ñuy def nii def nañ ko war discrètement te bu ma koy def sax man nekk ma fan dama génn yàlla dogal na ma programme nag li may programme ba pare après ci laay doog a ñëw nii loolu moo tax ñu defee ko ci façon boobu. ñaata na nga rey. Ah, def nañ li ñu war rek. dégg naa rey nga ñetti nag. non def nañ li ñu war rek comme ku daan tey genre dañ daan def. Euh, dañ ko doon def chaque une semaine. chaque jour ñu rey nag kon ay ñetti nag ak ñeenti loolu problème. mais def nañ ko benn rek. mais sant nañ ci yàlla. waaw yaa ngi fas yéene waaj a màggal incha allah. ah waaw allah nii nga nii nga koy nii nga koy defee fii ci Touba. fii ci Dakar noonu nga koy def Touba boo àggee danga koy simple wala da nga koy danga koy danga nga koy médiatiser. lii maanaam comme da nga daan yor këll bi. majjal cëfër cëfër ñëpp xam ne Balla Sadex la tey da cee taqrib ndax Touba da koy def huit kilos nga koy màggale wala nan nga ko fas yéene màggale. màggal yoor yoor la la war ngay li sëñ bi mu doon def waaw loolu la mais jàpp naa daal màggal yoor yoor la te buñ ko solo boo ko defee farata nga safante rek say sëriñ say am di jàmm suma sëriñ sëñ Aziz. macha allah koy siyaare baa di mu doon def nuyu waa Guy ok Omar ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaar dañu gis safar gi boo ko doon def da nga ko daa def deux jours wala trois jours. une semaine wala pendant une semaine lay doon lan moo waral tey nga tënk ko ci benn bis def ko lépp mu wàcc la lan la quoi. waaw waaw xam nga léegi soxla yi dafa bëri kenn ku nekk da ngay dox sa yitte bu njëkk jot mënoon naa yaatu mais àdduna nag li muy gën di dox rek. dëgg la gën a changé ay stratégies yoo xamante ne bu baax la. li ngay dajale def ñetti fan wala ñeenti fan mu boole ci benn fan. donc xëy na beneen bi yii di ñëw mën na gën a doon boo xamante ne. benn fan la doon mais day gën a yaatu. ak nawet bi yooyu neexu donc waaw loolu moo tax. lan moo la may coowul safar parce que. ak nga bokk ci coow yow. waaw xam nga ñu ne yaroo ci keppaaru muy Serigne Bassirou Bara nekkoon suma waajur nekkoon suma kilifa nekkoon suma lépp ba nga xamante ne man daal ku ma ku ma bëggoon la sopp ko ma nekkoon taalibe fi ma yaroo aussi tamit nekkoon kër Serigne Abdoulaye Fall. ñaari Baye Fall moom ci murid gi dama cee dama cee yàgg daal moo tax wax dëgg yàlla moo gisee nii dara war koo def en tant que murid moo def ko rek waaw def ci cof ci rek barkeelu waaw ci barkeelu macha allah euh, fi may ñëwaate balaa yeneen gars yi jël question mooy Balla lan moo ko booleeg siñ Saliou parce que ñu bëri dañu yaakaar ne Sëñ Saliou parce que moom nga ëpp looy ñoo boole moom loolu moom ëpp na sax di ko wax ci ci ci ci micro wala rajo parce que lu sax yëg-yëg la bi ma koy wax sax duma ko tey wala sentiment la boo xam doo comprendre sëriñ bi moo moo xëy moo def moom ci man waaw loolu moom <laughs> mooy loolu daal waaw waaw waaw mooy loolu mooy Sëriñ Tuubaa rek ban changement moo am ci Balla Gaye numéro 2 boo que 2005 moyen lu bëri amutoon kër taxawutoon oto taxawutoon leneen moo xam nga jaam ak pexem yàlla ak bu fekkee ne ñëw ci kër gi mu doon nga bëgg fa def dara jàpp naa ne boo amee góorgóorlu am jom il faut nga teg. am foo bëgg a xool sa bët yi am foo visé aussi ci taxaw nekk ci ah kon ni ko tuddee rek 2005 la laa doog a tàmbali ci wàllu làmb ba 2024 yàlla suturaal nañu yàlla sagal nañu yàlla teral nañu ba lépp li nga xamante ne bëgg nañ ko ci wala amoon yéene bi wala yàlla suñu doon dafa mel wala ñu am sax ñu foogaloon suñu àdduna donc loolu mënuñu koy sant yàlla rek. Mm. Ah, gërëmee ko suñu waajur gërëmee ko si tamit kilifa diine yi nga xamante ne moo tax jàmm am ay safar di am ay gàmm di am ba lépp di am donc loolu sant yàlla la mais di dina am hmm? sikkar dina am parce que ku ni safar ni sikkar ak jàng xasida jàng alxuraan gis nañ bernde mën naa am jàng nañ alxuraan mais gisaguñ sikkar waaw lépp benn li yow koy toog xaar di ñu seen. Euh, <laughs> ba tey dañuy ñëw ci côté investissement parce que ñun lu ci bëri dañ koy gëstu carrière bu taxaw moo tax nga koy def wala lan parce que dañu gis ne am na insécurité bi fi nekk ba bàyyi bëri ñeneen ñi leen di ketal ñeneen ñi boo dajee ñoom sax sax may leen mais informé wu ñu am na une parcelle allah feneen ak feneen lan moo la inspiré. la ko. loolu xam naa àdduna nit nag booy liggéey da ñaan yàlla def ko am foo ko def aussi ma may kilifa yoo xamante ne vraiment euh, dañ may jàppale di ma taxawu ci lu bëri muy làmb dafay jeex bu làmb jeexee aussi tamit na nga comportement ak coono gi la yàlla def tey nga am ko ñeme coono bi ñeme liggéey bi. boo àggee nag ba bàyyi làmb war ngaa dundee nag wax dëgg yàlla dund maanaam maa ngi koy yëg c'est-à-dire mhm. que nga sol lu rafet continue ko di nga sol war ngay war say oto yu rafet war nga mën a yor say kër yu rafet yoo xamante ne lépp loo ci bëgg di nga ko mais aussi tamit xam nga làmb moom yàmb dafa yaatu mhm. xëy nag ñu ma yàlla jagleel ak man tam aussi ma nangoote aussi tamit dégg ndigal bàyyi tere parce que xëy na génne na ma ci lu bëri ndax yàlla suturaal na ci lu bëri. macha allah ok question bi ñëpp di xaar mooy que da nga débuté woon ak la dëgër numéro deux 2004 2005 ngeen allah ci ay combat mu rafet nga yàgg sonn ci ay sonn ci say gis ñu dem ba ne coow dafa am. te ñëpp coow li amee ki ñuy jam baaraamu tuuma mooy Balla Gaye parce que dañ ne kilifa la biir géejawaay parce que làmb géejawaay nag bu caaxaan jeexale am na foo ko yóbbu am na noo leen jàppale xalaat ne lépp coow li yow yaa ko mën a fay pour mu jeex est mën nañu xaar Balla ci xolam ak ni mu ko amee ak ni ko la dëgër amee ngeen def ko pour Sénégal yëpp bàyyi coow loolu tege ci waaw xam nga man ni nga waxee rek yow li nga sentir nga <laughs> li nga gis wala li nga jàpp ne coow dafay am mm-hmm. wax dëgg jotewuñ dara yàlla xam na loolu yàlla rek moo tax ndeysaan mbindeef mënul wax mooy tax muy fen wala mooy wax lu dëgg billaahi wallaahi wa taala jotewuñ dara amuñu benn problème mm-hmm. mujj am laata muy dem ci am problème moom ma fekk France liir mi dama bàyyi fa doy ma ci seet passe na ko appel vidéo ma wax ak moom passe na ma ma maa ci Pereira tamit c'est la même chose abu booy band tamit noonu donc amuñu problème xëy na aussi tamit nit ñi peut-être ñu koy gisee mooy li ma waxoon moom la waxaat tey hmm. sant nañ ko keroog ba mu ba ko Bécaye di wax aussi loolu la wax loolu plaisir la parce que ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi àdduna du neex ba mu bëree moom àdduna neex tey ba làmb boole ñu mhm. rawatina si tamit loolu ay mbokk ma dëgg tey boo demee Sédhiou sama kër baay sumay kër maam mu ngi fi sama kër maam mu ngi fi moom man tey fii nga taw nii suma kër maam ci ginnaaw nii mooy seen kër donc jàmm lañuy sëg peut-être am na yenn wax yoo xamante ne wala ñu ngi di ci wax ak di ci commentaire moom dañoo xamul rek mais jotaguñ dara waaw ah, jotaguñ dara mën nañu xaar retour am pour ñu ciy wax ñëpp mën a noppi Balla Gaye di toog comme ni mu defee publicité ak Modou Lo bokk lekkandoo defee nag waxkat yi mbaa Balla Gaye sax daal otom seeti ko xam ñun tamit léeg-léeg duñu du ñu basé wu si nit ñi c'est trop parce que bu fekkee da ngay basé wu si nit ñi yow ay cooki dund wa def parce que boo déggee riir rek ne damay def lii nax lii wala damay wax lii nax lii yàggee dangay ngay juum comme yàlla dogal jotewuñ dara ñu seet jàmm te ni ñu ko daan sécuré nañ koy sécuré ñu ne jour du ñaar jotom wala temps wala man sama jot sama temps ñun ñëpp ñu gisante waxtaan saa bante loolu moo am solo ok gars yi ku ci am question bu ñëw ba tey coowal empereur bi day continuer di am hmm. parce que dem nañ ci Bambey ci xewu Saakuwaa bi Papis ne empereur bu ñu créé la seen bët lépp ci rois yi ngeen ko teg parce que empereur yàggul ñëw bokkut ak mu ah xam nga làmb neex na neex boo xamante ne kenn ku nekk li nga sant làmb dafa yoo xamante ne tey jii tey bu ma nekkoon roi de arènes man ñeme ma wax tey Eumeu Sène ñeme na taxaw na doo sama roi des arènes wala Bombardier ñeme naa ñëw tax na doo roi des arènes mais tey. bu mut loo taxawee tey ne roi des arènes la ñu naa a taxaw ne tey doon roi des arènes mais boo xaymaa affaire bi ba pare maanaam ci ci règlement par règlement sax ci ni ko sénégalais yi gisee ba tuddee wax ampleur ba promoteur bi créé ba am xel bu ma bu baax tey man Bombardier daan na ma deux fois ndeysaan Eumeu Sène daan na ma deux fois yaa ngi dégg baax na la man ma daan tafaatin deux fois daan muur deux fois daan giri deux fois léegi man ñi ma daan ñëpp tey Eumeu Sène daf ma daan tafaatin daan Bombardier daf maa daan tafaatin daan kon tey man ma ñëw daan ki nga xamante ne mooy Modou Lô waaw man trois deux yaa kon bon boo seetaanee boo def analyse comme ëmb doon analyse hmm. léegi analyse yooyu hmm. boobu jamono jooju moom moo ci ne hmm. waaye jamono ji boo ko analyser nag Balla Gaye c'est ampleur c'est ampleur mais mais Modou waaw dama seeti ëmb seen waaw waaw moom mu ne Bombardier ci diggante bi am lu fi xewaat sa diggante ak tafaati yow tey booy lan nga bëgg wax Balla Gaye c'est le maire seen c'est le maire ñun ñëpp ay maire lañ mais boo boo li ma la xaymaa nii ni mu demee nii ampleur bi yenn moment. ok ampleur <laughs> daal sama bopp. <laughs> mais mais Modou. Modou dafa am question boo xam moom la askan wi di xaar. Balla Gaye ku nekk gis na ni waa CNG dañ ko convoqué woon. Mhm. mais ñëwul wuy si. Mhm. bëggoon ñoo xam nag lan moo tax Balla Gaye wuy si woon mhm. loolu daal askan wi ñoo ko yóbbante di ko laaj Balla Gaye bëggoon nañoo xam lu tax wuy si woon. non ci li nga foog ak li nga xalaat moo tax nga ne wuy si woon. <laughs> maanaam waaw sëriñ maanaam li nga foog ak li yaakaar moo tax nga ne wuy suma waaye CNG kenn ku ne xam ne aussi tamit euh. ñooy responsable képp ki nga xamante ne mooy lutteur ak manager ak promoteur dëgg la niñ ma bindee lettre aussi tamit noonu laa leen bindee lettre fekk fekkuma fi wax dëgg yàlla mu rafet amuñu benn problème li ma waxoon wax naa ko man fi may taxawee rek mooy toujours mbër laa boo xamante ne bu question que lu ñu ma dagg amul importance dagg nañ mu lépp loolu nga muñ ko du ma ci kaas ñu bëri dangay yaakaar ne sax liñ ma dagg man liñ ma dagg ëpp na plus loolu yàgg nañu ma ko dagg mosuma kaas mais aussi dafa bëri ay jafe-jafe yoo xamante ne nekkoon na ci làmb mhm. gis ay xale yoo xam dañuy bëri ñu desee dara gis am ñoom dañuy bëree pare ñu naan yaa ñu desal xaalis wala tey bëri bi war a bëri en tant que ki nga xamante ne membre CNG nga nekk nekk ci biir riñ bi di xeex ak mbër loolu dafa métti te moom si ko mbër amul doole te làmb bu ñee làmb mbër tax ñuy wax mbër mooy bëre mbër bu waree dugg ci stade bi jeunes yi wala alkaati yi ñu boole ñoom ñoom ñu am ay problème te loolu dafa war a jeex ci làmb làmb dafa nekk facteur développement man li ma wax pourtant saa kees Reug Reug def nañ ma loo xamante ne làmb na fa yàq joxuñu ma benn loo xamante sax remerciement la amul dañ maa dóor ci loxo gaañ ma def ma lu nekk pour pourtant geste bu rafet laa def est ce que mos ngaa gis sincèrement ma kaay dañ lay remercier ci attu bi nga def wala nangam mos mosuma yàq làmb te donc dafa am yoon dañ koy xoolaat te làmb wala sport léegi dafa avancé ba mu ëpp nga gis règlement yi bu ñu tegee bii ren déwén beneen règlement lañu teg maanaam dañuy tegg bii rek teg fi bee déwén ñu indiwaat ko kon donc jaaru na ñoom ñuy gën a saytu saytu yoo xamante ne ay règlement lañu loo xamante ne ci wàllum sport ci lu mu munti doon ñu koy saytu bu baax. bu ko defee daal ñu ñëpp benn la ñu on ensemble. Mm. loolu donc. du ñu jeexal ci CNG moo du duñu jeexal ci CNG te du ñu wax nii non dafa dafa am lu ma bëgg a wax parce que fi mu toll nii CNG ku ne dañ ñii dañ ni seen seen seen seen mandat jeex na. ñii nii dese nañ un an. kenn ku ci nekk yaa ngi wut sa candidat di teg ñu bëgg a xam ndax Balla Gaye kàddu yooyu mu yëkkati woon dafa am candidat moom mm. wala tey jii dafa am ku nekk ci ginnaaw Balla wala moom Balla dafa am ambition wu nekk président CNG wala lu xew. non moom moom je suis lutteur activité. mbir laa bëri moo ma war. ci ci loolu laay nekk. man xeexuma CNG jéemuma koo xeex. maanaam nit du sàkk boppam koo xamante ne kii mooy fal wala fal parce que man ci li ma nekk laa nekk. Bira bu fi nekkee xeerul bu keneen nekkee xeerul mais aussi nañu dimbali ñi nga xamante ne ñooy mbëri teg leen fi ñu war a teg respecté leen jox leen seen gëdd. maanaam dafa jaadu làmb bu jeexee CNG woo kulli ki nga xamante ne mooy mbër la lii fii lañ koy def règlement lii lañ koy def règlement lii lañ def bu ko defee ñun acteurs yi nga xamante ne ñooy tëdd fii bu ñu demee kenn ku nekk suñu poney bu ñu lay indi dinañ la wax lii ak leer li moo te loolu dafa te loolu dafa war a am waxtaan CNG ak mbër ñoo war di waxtaan di diisoo bu ko defee yii di du am parce que ñun aussi tamit waxuñu moom daan non pas daan sax nekk champion champion dafa am nekk ndaaraan mais ku mës a bëre grand combat ku mës a bëre trois cent mille ngay yàq koo xamante ne wax dëgg yàlla champion ay toq saraxam nag mën na laa moom ngay tëgg ah dafa am yoo xam ne booyee li ñu rek la te ñu nekk nit te ñi ñi wax ak nii tey nga wax la Lac de Guiers lu baax suba nga wax ak Balla Gaye xas ko tey retourné nga wax ak Lac de lu baax tey yaa ngi xas Balla Gaye kon yooyu yooyu waaw te yooyu sax ay détails la sax. amul solo amuñu ma seen temps dama gis booy ñoom màcc di def affaire yi rek. ak ndigal. donc ma xam ne ñooñu. ay mbër lañu te pourtant ay mbër lañ. Hmm. ñu bëri ay kese yu baax. mën nañu ci benn fe. santuma leen ci li nga xamante ne ñoo ngi koy def déedéet. sant naa leen en tant que drapeau géejewaay bi ñu def bi ñuy défendre. loolu moo ma tax a jóg géejewaay ñun dañ cee sonn. bañ ciy ñafe góor mu woon taxaw du ñafe ngay mbapat ñu lay dàq ji di la génnal ay jaas ay bëgg non boobu góor yombul de te ñun doyu daf ñoo fekk fii xeexal nañu géejawaay defaan nañ géejawaay te géejawaay saa yu soxlaa ñu dem jëli kon ñu ngi sant yàlla loolu en fait fi ñuy jeexale yow sëñ Baye. waaw tamit kon bu amee dañ koy wax waaw mhm. sa coach bi nga xamante ni mooy Lamine Golo macha allah rafet na. mais da nga jëli Père Mbaye Cissé. Mhm. Mbaye Samb Mbaye ji paase nga jël kii teg ci loxoom. ne sa première kase ci empereur bi teg nga ci 500000 2 millions. Hmm. de lutte hmm. jël billet Makka may ko frère may ko frère am. jox Thierno Gueye Thierno Gueye lan moo tax. Hmm.